ok mbokk yi arbitre sifflé na diggante Serigne Ndiaye 2 ñenn ñi xam ko ci Coriace ak Émile François Gomis ñu ko xam ko kër goo xam ci franc mu ngi noonu arbitre sifflé na génn seen diggante ca arène nationale lañ mujjee bëre waaw waaw franc daal di koy jaay boppam daal di koy daan jël bu rëy keroog 10 millions la woon Jax production tey 3 millions faata production ay waay ndax Serigne Ndiaye. day jël revanche wala Franc day confirmer en tout cas fii ak simili yu néew ñu xam ne waa neen di mu jékki gëtëm waaye fi mu toll nii 1-0 waa wow waa parcelle ñoo am 1 ci kaw waa Fass wala waa parcelle ñoo am 1 ci kaw waa Médina tey nag confirmation la wala revanche entre Corias Émile François Gomis waaw ñaari mbër yoo xam ne kenn dootu leen présenté ci lutte simple ñu def ay preuve Serigne Ndiaye gis nañ ko ak génn bu am solo bi nga xam ne defoon na ko jël arène nationale teg ca Adrien Senghor teg ca terrain gaal gi ñu daan ay champion François Gomis ba mu dellu si États-Unis ba léegi gala yi mu da koo jël arène nationale da koo jël. Iba Mar Diop da koo jël Mbour Caroline Faye da koo jël tey mu ngi ci Ñaaxaar eh. ah waaw jël na ko plaqué na ko plaqué na ko daan na ko daan na ko daan na ko na Franc Coriace daan na Franc Gorias daan na Emile François Gomis voilà ñu ngi ci quart de fii nii diggante ordinateur laak Boy Faye fële diggante Déthié Seck laak Déthié Seck ak euh, Libidor Ibou Ndiaye Oboli moo daan léegi Biram Bisine ndeysaan ah xool leen bàkku ba ndeysaan Boy Faye ordinateur Boy Faye ordinateur ordinateur jël na tànk ba ordinateur jël na tànk ba ordinateur jël na tànk ba mbuufaan na ko Boy Faye doo ci génn Boy Faye doo ci génn ordinateur sori na la Boy Faye fa la ordinateur yegg sori na Boy Faye day jóg Boy Faye day jóg ordi du la du la ci bàyyi Boy Faye day jóg ordi du la ci bàyyi Boy Faye day jóg ordi du ko ci bàyyi Boy Faye ordinateur Boy Faye ordinateur Boy Faye jóg na doo ci réussir jóg na jóg na ordinateur daan ko ordinateur daan na ko ordinatër daan na ko ordinateur daan na ko wala lu arbitre wax lu arbitre wax ordinateur daan na Boy fay ordinateur daan na Boy Faye wala diggante Libidor la ak Déthié Seck Libidor Déthié Seck Libidor ak Déthié Seck ndeysaan ordinateur daan na Boy fay Ibou Ndiaye Obali daan na Biram Bisine Libidor moom moo des ak Déthié Seck ku daan ñu am ñetti demi mu des diggante Serigne Ndiaye 2 ak kan ak kan Serigne Ndiaye kan lay am Libidor ak Déthié Seck Déthié Seck moo ngembo ngemb lu ñuul li won ñu ginnaaw Libidor ngembo ngemb lu weex ñoom ñaar ñoo nekk noonu quart de finale la ñu nekk ku daan yaa nga demi-finale waaw ce Seck da doon jéem a mboot far daanu Libidor daan na ko. arbitre sifflé na génn seen diggante Serigne Ndiaye 2 ak Sélémélé Sélémélé moo ngemboo ngemb lu ñuul li won ñu kanam Serigne Ndiaye ngembal wax xaw ma ngembal Lagos ñaar yooyu en tout cas ci moo won ginnaaw ñu ngay lewtoo Sélémélé Serigne Ndiaye 2 ñu ngay lewtoo bii moo ci des. ñu complété demi-finale yi Ibou Ndiaye Yobali mu nga demi-finale ordinateur mu nga demi-finale Libidor mu nga demi-finale na am ku dem ci diggante Serigne Ndiaye ak Selemele mu mat sëkk ñu am yu yéeme ay Libidor kan lay am Libidor xam nga ne ndeysaan bu amee ordinateur loolu toq su bënn la saan bëreer xam nga ne Libidor tey bu amee Serigne Ndiaye wala Sélémélé toq su bënn lay doon xam nga ne bu Ndiaye obali bu amee li bi door loolu revanche lay doon waaw wow maa loolu daw lu neex deux avertissement pour Sélémélé boo amaatee troisième avertissement mu jeex waaw boo amaatee beneen avertissement mu jeex ndeysaan kenn felay notaire Kaago Selemele combat bi bu jeexewut avertissement bu jëllaamee rek loxo dem gémme waaw ndeysaan andaade xaada ay bu ngeen yaa ndey faatu adama jali di woy xaade xaada tiime gi maam de jëfoode ay bu ma neexoon baat laay fu ngeen jaar ngeen gis woykat bu góor voilà Serigne Ndiaye daan na s'éliminer par avertissement génne na ko par point voilà c'est terminé c'est terminé c'est terminé ah demi-finale de feu <laughs> de feu di revanche entre Ibou Ndiaye Oboli et Libidor Libidor bu Kayar Libidor bu Grand Yoff mbooloo Libidor ba woon ca Grand Yoff mbooloo léegi mu nga ca Kayar revanche la keroog ca Diofior ñoo finalu Libidor daan ko jël bu rëy waaye tey ñoo demi final fii ci Ñaaxaar waaye si wet gi yéen a ngi gis diggante Serigne Ndiaye numéro 2 ak ordinateur mu ngi noonu ah Obale Ngok Obale Ngok. Obeuly ak Libidor Libidor moo ngeen lu weex li Obeuly ngeen lu xonq li tey kenn du ko lijjanti final ba woon ca Diofior mooy demi final ci Ñaaxaar waaw Serigne yaa ngoog yaa éliminé Franc Franc ba mu jógee états ba léegi mu ngi doog a daanu ci mbapat yaa ko daan def nga lu rëy bam la daane arène nationale ba léegi kenn gisu feeñ nga tey lan nga indaale war nga ñu koo wax jël na ko jër na ko jël na Serigne Ndiaye ordinateur jël na tànku Serigne Ndiaye coppet la ko def Serigne Ndiaye ak mën a bëre génn na ca ba set wecc waa lii ba jàmm la Serigne Ndiaye ordinateur fu la jëmee ordinateur daan na Serigne Ndiaye ordinateur daan na Serigne Ndiaye. la ordinateur fi nga yegg Serigne ba detteel ko bu ko fa yeggoon wan na la musiba waaye bàyyi naa làmb tey benn waaye ma fekk fi ma toog mu ne ma Franc mais di bëre day daan waaye bu bëre waatee dañ koy daan billaay noonu la ma ko waxee noonee la amee biñ daanee Franc ma wër ko ba gis ko ma ne ko sawaay yow jinne nga wala da ngay luxus wala kayaafi nga mu ne ma des na ponkal mi ñuy daan demi-finale maa la ko wax dee ko xool mooy daan Franc te danañ ko daan demi-finale hee maa jommi ci moom ndeysaan ndeysaan ndeysaan moo tax ma am fit ba dee waaye Lac Rose TV bi ma dendeg moom dama ko ne dama ko ne ordinateur daa jekk tey mu nga noonu waaye nag Libidor ak Obali ñoo ne ca digg ba cey li fi xew sànq cey li fi xew sànq avertissement pour ki monsieur l'arbitre déplacé wul arbitre déplacé wul Libidor daan nañ la Libidor daan nañ la voilà mbokk internet yi ñuy suivre ci wasaare lamb fogole séeréer yi sim naa nuun mbokk yi ñu ngi tey ci ñaaxaar Faata production moo nu fi dajale boobaak léegi ñu ngi ci compétition yi waaye dañu agsi ci cappaandaw la ndeysaan muy final ya final lese bi la ñu nekk nii buñ ca jógee ci final lour ba lese bi diggante Mamou Zidane la ngemboo ngemb lu weex ak Modou Baye Fall ngemboo ngemb ñaari mbër yaa ngoog xale yi tey def nañ fi doom seeni morom yi fi nekkoon bari woon nan lool waaye ñoo leen éliminé ba jeex tàkk ñoo ngi nii ca cappaandaw ga ca final ba ku daan nag yaa moome waawow ku daan yaa moome ndeysaan Modou Baye Fall day jël loxo ya bal ko da koy jéem a tël da koy jéem tël fàqat ko hey jaay ko ci koy kaña cey lamba neex ku ma yee ndeysaan waaw arbitre bu randuut ma randu ñu ngi noona jël na ko wër nañ Modou Baye Fall nomba maam si daa wër na noonu da lay sempi lonku na ko ca ginnaaw kal na ko daan na ko final baa ngoog Mamou Zidane nee ñaar nee boobu woo ko ñamee muy sa ñaareel ñu defeet sama kanam oh. nañ la ay ca final ngi noonu ordinateur Obeuly ñoom ñaar bi ñu mujjee bëre Diofior la woon ordinateur ak Obeuly te Yaxya Diop moo fi woote woon ay ca ñaari mbër noonu mu mel ne ku nekk bi nga bëgg Obeuly bañ na Obeuly ak ordinateur Obeuly moo yore ngeen doon xool ordinateur daf la jël tànk ba Obeuly bañ na ordinateur jël na tànk ba Obeuly bañ oh daa ne tànk moom Obeuly ordinateur Obeuly te yax job ma fulli ordinateur daan ko ordinateur daan na